أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والاه نيو سي تي العرف في فن الصرف تي <clears throat> اسم فاعل <clears throat> هو مشتق موي قتي من مصدر انت مصدر المبني بين تقل الفاعل للفاعل لمن يل كنا خمنا وقعتا بن من يتموم الفين على جفجة وتعلق والمأجوب يتموم اسم فاعل كي مصدر لن كي خطي حمق مصدر كي لنجري مبولم مشتقاتي يعني لن مصدر موري چسان لن لن يون صرف يبجاب دنگا كون اسم فاعل كي مصدر لن كي تجي دفكو اسم فاعل مرام تورو كي دف lay firi li man waqaa minul fi'lu turu ki def wala turu ki jëf ji aju ci moom dégg nga mayit kooku defu deeja waaye dee gi ci moom la aju saar yooyu la dégg nga woo moom min sulaasi bu dee sulaasi la ala wasni faa'ilin peese faa'il lay doon xaaliban ci lu not ismu faa'il bu dee sulaasi li ëpp faa'il lay doon ndax wa naasir aji dimbale daaribun aji dóor qaabilun aji ñëw maadun aji tàllal raaqin aji yéeg taawun aji lem baain aji jaay ko il fa faayil li ëpp faayilun lay doon fayn kaane dem nekk na fenlu fenlom bi aj wof di di buñ soppi maskaam ba nga xam ne xulibat changé nañ alifu xulibat euh, dañuy changé alifu alifam nga xam sara muy xam siis mu faay tey baa bayaa la woon kon digg ba dafa ràgg ndax digg bu amee alif wala waa dañ koo changé def ko alif waxuñ bayaa ci fi'l bi waaye baa lañu wax kon mu àll la mu àll mooy buñ changé xarafu ràgg yi def ko beneen xaraf aji wof nag mooy koo xam ne digg bi dafa ragg rek su fekkee fi'l bi noonu la mel aji wof la mu àllan داني سانز الف غير فكم حمزه شي اسمه فاعل بي كان دو وخ باي عن دلو كو شي تساني واي باي عن غي وخ قال قولا مورن تسان لي كان دو قاويل باسكو دنج كو سانز اجو فلا واي معلل سكر في قائل غي وخ كما سياتيكم نيو خمي لول دا ديك في الاعلال تي راغال ان شاء الله بو نيغي تي اعلال دا نجانغل لول ومن غير الثلاثي اسم فاعل بريد ثلاثي على زينة مدارعي بيس مدارع عليك بإبدال حرف المدارعة إنك كساس حرف مدارع بي ميما ميم مضمومة بن دم وكسر ما قبل الآخرين كسر لنجك مج اسم فاعل بريد ثلاثي جر المدارع دحرج يدحرج له جرل يدحرج جوجو nga changé yaa googu mooy xarfu mudaari bi def ko miim guñ dam su ko defee la njëkk mujj ga te mooy raaga jim gi mooy mujj ga la ko njëkk nga kasara ko mu daxrijun lay nekk yu daxriju nga ne mu daxrijun yantaliqu nga ne muntaliqun yaa gi da def miim guñ dam la njëkk mujj ga nga yastaxriju nga ne mustaxrijun dégg nga ko defee noo leen ko defee lu tax nag mu ne nga kasara la njëkk mujj ga te yow yéen yi ngeen gisee mujj gi dafa kasara la njëkk mujj ga dafa kasara daf dafa am yeneen faal yoo xam ne la njëkk mujj ga du kasara taallama yataallamu mooy mu daaro bi su ko doon def ismu faayil da ngay jël yaa gi def ko mim guñ daamu muy mu nga kasara la njëkk mujj ga te fii dafa fata muy mutaallimun boo fekkee la njëkk mujj gi kasara noonu nga koy bàyyi soo fekkee nag mu fata da nga ko war a kasara تعلم يتعلم متعلم لا وقد شذ جادنا من ذلك تي لول ثلاثه الفاظ نيتي بات ام نيتي بات يو خامني دا غاي جيل حرف مدار بي سانز كوم ميم غين دام واي فتحه لا نيك موجغا كوم اسم مفعول مو اسم فاعل بي وي موم اصحاب قوينا فهو مساوون اجي قويلا دنگم ko amee couleur bu xaw a xonq boo axsana sangewu na foofu muxsanun ngay wax aji sangewu gis mu faal waaye mu faal lañ ko def wa alfaja bi firi sisir na bi maanaa aflasa foofu moom muflajun mulfajun kon kuñ sisir la bi fati ma qabla al axir da ngay fataa la njëkk mujj ga fiihaa ci fiil yi loolu mooy ismu faal bi waqad jaa dikk na min afaala ci afaala la faailin ci faail léegi-léegi afala xam nga mufil la war a doon parce que yufilu mooy fi'lu mudaari bi ismu faayil bi mufil la war a doon su ko defee léegi-léegi mu nekk faayilu loolu xeyru qiyaas yi ni ki achaba bëri na ñax almakaanu barab bi foofu moom aachibun lu mu waroon doon foofu muchibun waaye foofu aachibun la ñuy def وأورث قب بسقنا فهوم وارسون هم قم مورسون لورنا دون بس أورث يورسون فهو وارسون وأيفع مجنا الغلام قلبي فهو يافع جيوخ وهو ميفع يويو سين اسم فاعل بيدا فجاد قياس بوكو تغلغا خمون ولا يقال لن يخفي ومفعل فاعل لن يخفي اسم فاعل لن يوتي على وزن فاعل تلو قمنني دو آه، آه، دو سلاسي لي لي وقد تحول لي لي نساجة صيغة فاعل تجل فاعل لدلالة تكتر على كسرة تبري والمبالغة أجثل في حدث شيخ خو خو فاعل ñu changé ko def ko beneen tëggin pour wane ne mbir mi li muy xew dafa bëri ñaata tëggin lañ koy def illaa awsaanin ci ay peese xamsatin yi juróom mashuratin yu siw faayilun léeg-léeg ñu def ko juróomi peese yu siw tusamma danañ ko tuddee seexul mubaalaxa tëgginu jotal faayilun rek lañ changé def ko noonu faayilun rek moom lañ changé jox ko tëggin yi pour wane ne mbir mi li xew dafa bëri waaye moom faalun faayilun léegi ñu def ko faaalun daf ko jàngal ko daf ko faaalun bi tasdidil ayni si sadd digg ba ka akkaalun gi firi lekkaakoon sharaabun bi firi naanaakoon akkaalun sharaabun aakilun shaaribun daf ko faaalun muy akkaal ku bëri lu muy lekk sharaab ku bëri lu muy naan ومفعال كمن حار لجا كون مي كبري لمي لوج ماي راي <coughs> لين يفكو فاعول كغفور كبري لمي جيغالي لين يفكو فاعيل كسميع كوي ديغلو وري لين يفكو فاعيل صح بفتح الفاء فتا فاغ وكسر عين كسر عين كحذير كبري لمي موتدكو نعم. جومي تگني سيغول مبالغه لن تدي نعم. مين لين جيلي تي فاعل نعم. وقد سمعت دجل الفاظ اي بات للمبالغه غير جوتال غير تلك الخمسه يو بوكو تك جيروم يوي امنا يرين جيرومي بار يو خامني يرين بار يو خامني دا فا نيو بور وراني مبير ملي مي خاو بارينا تا بوكو تك جيروم يي منا بوكو نسي فعيل بكسر فاي تي كسر فاغي وتسجيل عيني اكسد عين جي مكسوره بن كسر كسكير كبرلو مي ماندي نعم. اي سماعيله wa mifil ak mifil bi kasrin ci kasra mim gi fa sukkurin topp topp sukkoon faaga ka miatir ku bëri lu muy gëtt gëttu mooy xet borom xet gu neex rek wa faalatun ak faala bi dammin ci damu faaga fa fatun ta fata ayin ka ka humaza jawaakoon lumaza ñaar yëpp jëw koon jëw la dégg bi dafay jëw ci làmmiñ bi jëw ci bët rek وفاعول اك فاعول كفاروق اجي تقل ديغل ديغ تياخان آه. مانام كو بير لي في تقل ديغنت ديغ تياخان وفعال اك فعال بدم الفاعل سي دم فاغي وتخفيف العين اك اويف العين كي مانام دوكو سد او تسجيدها سوا ولا نسدكو من غا فعال ولا فعال كطوال ولا طوال آه، وكبار ولا كبار بتسجيل من سد دقبة أو التخفيف ولا ما يفرق وبهما في يوم نال يقرأ أجانا إن كقوله تعالى وخيال جمنان ومكروا مكرا كبارا ولا كبارا بخلين بخموري وقد يأتي ذلك فاعل فاعل مرادا دين النمو بيت اسم مفعول اسم مفعول قليلا لنو لا فاعل نيو من نمو اسم مفعول كقوله تعالى نكو خيال جكو جمنان في عيشة تدن رادية لا لا بالقرم بوران كي على وزن فاعل لا نيو راديون وعالم في المرجية بالقرم نعم. فقا قوي الشاعر نيكي واخو ويكر بمنان دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت التاعم الكاسي أنت المطعوم المكسي يريفير نعم. يا كيني لال يا كيني ورد باي الترانجي بول لخص بوساكوكو تنغو يوم دنج لي ليهال دي لا ود رك لول قصر لا فين يور تاغ لا فين دون يو فيغا توك دنج لا فك جوخ لا ليك جوخ لا ود واي داف كو يوم منو دار توغ رك دنج لا ورا ليهال دي لا خد بودو تي تران اي المطعم المكسي واي غيس نغا تاعم لا اك الكاسي كون فاعل لا بو ما اسمه فونس كما أنه كم نيغا خمينا فاعل قد يأتي دنا ديك مراد اندلو نم بيت موم النسب أسكن إيه نيغ فاعل فك نسبة لنكو أسكن برب رك كما سيأتي كم نمي ديك دول دنكو اندي شي بنت النسب وقد يأتي دنا ديك فاعل فاعل مرادا دلو نمو دلو فاعل dana dikk muraadan du ñu nam bii ci moom faayilun faayil te qadirun bi maanaa qadirun aji am kattan faayilun rek la waaye li ñu si nam rek mooy faayilun ne la ala kulli shay'in qadir ay qadir wa kaza faawulun faawulun léeg-léegi dana ñëw sax bi fatil faayi ci fata faa gi ka xafuurun ni ki xafuur bi maanaa xaafir كما فاولون يونا سي سيغا سيغا المبالغة بار فاتو يونا فاولون فك نمون سي مبالغة ما انا فاير لا يرى غفور من نافير غافر اجي جيجل فقولا فعل هو ما اسمه فاعل اسم المفعول اسم المفعول هو ما اشتق ما ينقطع من مصدر انت مصدر المبني بربن تبخ للمجهول يا لنجريري لمن يلقى خمن وقع تابن عليه الفعل وجفجه اسم مفعول ممكن مصدر مبني للمجهول لنكوي جلي موي في كجف جدانو تي كوم اسم فاعل لمن وقع منه الفعل كجف جيجي تي موم وا اسم مفعول دافاي تيكي كجف جدانو تي كوم ñoom ñëpp ci masdar lañ leen lañ leen jëlee waaye fii nag masdar bi dañ koy tëggee si mabni li majhul maanaam xamuñ ku ko def su ko defee bu waxoon ñu ngi ko jëlee ci fi'lu boo xam ne al mabni lil majhul la mooy gën a leer mooy gën a leer dégg parce que isu mafoon boo xoolee jëlee nañ ko ci masdar mooy ci sànla la gaa waaye xotteekuwul ci masdar direct dafa mel ni sët rek sët jugeewul ci maam waaye ci baala jugee fi'lu ba muy jugee nag dañ koy def mabniyun lil majhul moom isu mafoon naan lu jigéen dañ ko def moom ni ñu majul doo ñëw ne dara ba ci lañ day jëlee madrubun déedéet naan ba ci lañ jëlee madrub kon ismu mafool foo ko fekk xamuñ ku ku ku jëf-jëf ci dañ ko dañ ko waxut tudduñ ko daal woo moom mi na sulaasi bu dee sulaasi la ala zinati mafoolin mu ngi ci peese mafool bu la koy tëgg nasara dimbal na ne man su wala nusira mansuur kuñ dimbale ku ko dimbale mhm. waxuñ ko wañu da digéef nañ ko mawut luñ dig xii mhm. mhm. la waxeef nañ nga ne cosaan li maquwul la waroon a doon du du maquwul ga mooy ismu font bi parce que foo am changement ñu ne xarafu ràgg yi maas waaw ga la jiitu di xaaf ga sukkoon te wér jaaduwut ñu toxal maas ka bi jox xaaf gi muy maquulu ñaari waaw dajee ñaasa benn muy maquul bu fekkee dafa ràggee waaw noonu lañ ko defee xiila la ñu def ko maquulun parce que ci saan li xawala la xarafi ràgg maas la ko jiitu sukkoon tëwér jaaduwut mm-hmm. ñi doxal maskab waaw gi jox ko xaaf ka léegi kon xam nga am amoon nañ waaw gu njëkk maquulun mm. ak waaw gii nga xam ne léegi xëccaare la mm. ñaari waaw daje ñu xasa benn muy maquul mm-hmm. mabiun mm-hmm. loolu mooy ajoofu yaayi lu digg ba ràgg te ràgg yaa mm-hmm. cosaan li mabyuun la mab yuun ñu ne dégg nga euh, arafu euh, isan damma euh, maa qabla waaw ismu mafoon kusira nga koy loolu nga koy njëkk lu njëkk waaw ismu mafoon buy aju woo fi yaayi dañ koy kasara bu dàmmee isan damma maa qabla waaw ismu mafoon fi la aju fi yaayi kusira lu njëkk waaw ismu mafoon buy aju fi yaayi bu dàmmee dañ koy soppi kasara map yu on ñu soppi yaagi kasara su ko defee kasara woo mbokkam mbokkam kasara yaa mab yi waaw goo xam mënu xëcc kasara mm-hmm. su ko defee ñu koy soppi yaa muy mab yii un mm-hmm. mab yii un mm-hmm. nga door wax xarafu yi maas mooy yaagi la nga jiitu de baa sukkoon tiwér jaaruwut ñu toxal maska yaagi jox baagi muy mab yii un xam nga moom lay am ñaari ñaari xëccaan mhm. ñaari yaa daje ñaasa benn mu nekk mabiyaam mhm. noonu la tëggee ismu mafoon mhm. ci ajoofu yaay su ko defee bu fekkee naaqisu yaay la rama yar mi kooku yaa ràggee mar mu yun ngay wax mar mu yun dégg dégg nga mm-hmm. waaw ak yaa dajee mm-hmm. bu njëkk sukkoon waaw ak yaa bu ñu dajee mm-hmm. bu njëkk bu sukkoon ne dañuy soppi waaw gi yaa bu ko defee defee mar muy yun ah? bu ko defee ñu eh, ñu ne eh, ñu euh, euh, li njëkk waaw gi mhm. li njëkk yaa gi euh, ka dàmm mhm. loolu dëppoo dàmm ak yaa dëppoo ñu mhm. jël mim gi kasara ko muy mar mii yoon ñaari waa ñaari kii daje ñaari kim daje ñu jël benn mu sadda sa benn muy mar miyun mar muuyun la waroon doon ba neexee it nga def ko comme ni nga def fële mar muuyun nga ne li njëkk waaw fi ma foon bu dàmmee dañ koy soppi kasra bu fekkee dafay aju fi yaayi wala naaqisu yaayi te fi aju fi yaayi la nga kasra miim gi kasra wu mbokkam mbokkam kasra yaa muy mar mi yun ñaari kem dajee nga jël benn ci si benn boobu mën nga see jaar mu am mar mi yun mawqiyun waqaa feg na aju kii la lafiifu mafruq mawquuyun la même même même irab la li njëkk waaw ismu maf'ul hmm. buy ajoo yaay bu digg ràggee yaa bu daa mel nañ soppi kasara nga soppi xaaf gi kasaro hmm. kasaroo mbokkam mbokkam kasara yaa hmm. muy mawqiyun ñaari kem lay nekk matt wuuyun kasara wala nga ne ñaari waaw yaa dajee rek bu njëkk bi sukkoon kasaroo mbokom mbokom kaso yaa muy mat wii ñaari kam day njël benn bi sëri si benn bi lii lafiifu maqrun la bee lafiifu mafruq waqa mooy lafiifu mafruq tawa lafiifu maqrun waaye yëpp aju lépp yëpp naaqis la même lafiif naaqis la naaqis yaay parce que yaa la raagit dégg nga bu neexee nga ne buy lafiif mafruq wala lafiif maqrun waaye daal yaagi lañ ci xool yooyu aslun cosaan lañ maa adal awulee ni lu may ñaari njëkk yi mansuur al aslu lay cosaan maa adal awulee ni lu dul ñaari njëkk yi te mooy mansuur ak mawut laa woone maquul mabiya marmiyun mawqiyun matwiyun la siy cosaan mooy maquulun mabyuun marmuyun matwuyun loolu moo doon cosaan nuñ def ba am lii nag mu ne commencé ci comme nga xam dana dikk fi baabu inla ci buntu inla waaye ñun laal lañ ci tuuti amma mansuur ak mawuud moom changé wuñ ci dara mafoon la lañ ko tëj. laa bëgg wax ne yii boo xoolee dafay mel du mafoon fekk mafoon la. waqad yakun léeg-léeg mu nekk moom ismu mafoon. ala wazni failun ci peese fail ka qatilun kuñ rey. jarixun kuñ gaañ. foo fekk ismu mafoon nag bu ñëwee nii. غور رجل والمرأة نيوتيام رجل جريح امرأة جريح دو امتا لول دانكو اندي سي موجي تي وقد يجيو دان ديك مفعول مفعول مرادا دير نام بي سي المصدر لي لا مفهوم مفعول فك مصدر مفهوم نام كقول ابن كيسن واخ ليس لفلان معقول اي عقل ليس لكل فلان نيل ديو معقول خل فوب دوغو فيري معقول لون خلال déedéet maaquul foofu maful la waaye masdar la lañ ci nam mooy masdar aqul la lañ ci nam wa ma indahu maalumun ay ilmun maa indoo nekkul fi moom maalumun xam-xam waaye duñu wax ne maalumun luñ xam yaa ngi dégg ay aqulun xel wa ilmun ak xam-xam فما غير ثلاثي ولا زر ثلاثي فيكون ذلك اسم فاعل يكون اسم فاعل بهم ولكن وارا بفتح ما قبل الاخر وارا يفضى لديكم مجد آه، اسم مفعول في ثلاثي مم لن تري برا جيك بويري جني لن تشوام دني تشوات لن تشوخ عليك نيو لن تشوخ اما بدر ثلاثي نك موك اسم فاعل نيو بوك نيو كي تجي لن يوتي مو اسم فاعل لن تكون مجد لن كوي كسرة اسم مفعول لن تكون مجد لن تفتح kon noo koy def da ngay jël mudaara bi jël xarf mudaara bi soo changé ko mim guñ daam fataala njëkk mujj taallama ismu faayil bi mutaallimun la waroon doon ismu mafool mutaallamun istaxraja ismu faayil bi mustaxrijun parce que yastaxriju mooy mudaara bi ismu mafool bi mustaxrajun muntaliqun ismu mafool bi muntalaqun moo tax walakin waaye nag bi fati qabla axir da ngay fataala njëkk mujj ga naxu mukramun kuñ teral maazumun kuñ màggal mustaaanun bihi kuñ dimbale mukramun bu dee ismu mafoon mukrimun muazzamun bu dee ismu faayil bi mukrimun muazzamun bu dee ismu faayil bi muazzimun mustaaanun bu dee ismu faayil bi mustaainun dégg nga mujj gi dafa mel noo xam ne ni masque bi mënul feeñ comme muxtaar xam nga muxtayirun dafay diis muxtayarun tamit kenn du ko wax yaa ngi soxlawul masque yooyu kon foofu dañ koy changé alif rek ngant lay doon ñu masque ko foofu muxtaar ismu faal bi ismu ful benn la صيغه الكلام بريم ولا كي خمر ولا تجي مدرو دكمون كوتي خلي معتد معتد لهون او معتد دون واي عرب نغور نياري كم يدجي فو نجيل بن بي سد سي بن تو بوكو سد دو مرا فين باسكو با يورون ماسك كسر بك فتاغي دم كو سد ليك سد مو خامي فو كوكو معتد دون رك ني دون معتض luñ compté muxtaar luñ tànn munsabun tamit noonu la luñ sotti muxaabun luñ bëgg muxaabibun la woon munsabibun mutaxaab mutaxaabun tamit noonu taxaaba bëggante nañ mutaxaabun tamit noonu la mutaxaabibun la woon saar yi nga xam ne muy gën a am sadda wala mu raag raag goo xam ne mënu leen teqale su ko defee foofu ismu faa ismu fool ñoo bokk même tëggin yii fasaalihun aj yéwén la li ismay faal ñeel ñaari tur yi benn bi mooy ismu faal wal mafuul beneen mooy ismu mafuul bi xas bi taqdir ci kam nattale bi lii mën naa nekk ismu faal mën naa nekk ismu mafuul yaa ngi dégg mais سبيل فين ولا ولا يساق وادين تج اسم المفهوم اسم المفهوم من اللازم كي لازم فعل لازم كان لو تج اسم المفعول فعل متعدي بمن المفهوم بيرك الا مع الظرف لو ما عندك ظرف boo xam ni dafa jagoo saara dox na man ngaa wax siira doxeef nañ yowmul jumaati bisu àjjuma ànd nag sarf laazim Hmm? léegi su ko defee euh, masirun aj dox la euh, euh, hmm, dégg mm-hmm. luñ dox mu yowmul jumaati saara yasiru mm-hmm. comme ma bi la rek masirun yowmul yowmul jumaati mm-hmm. awil jaar ma majruur wala mu ànd ak jaar ak majruur dégg nga foo mu ànd ak jaar ak majruur hmm. jaar ak majruur goo xam ni waxoon nañ ci gannaaw ne boo xam ne ni du nekk loo xam ne dafa jagoo leen xam nga kaaf ismu zaahir rek lay jar hmm. kooku du mën a ànd ak baat ñu koy tëgg moom ñu majruur hmm. comme que mënuñ koo tëgg moom ñu majruur duñ ko mën a def kii dégg nga comme furiha bëggeef nañ bi ma zeydin mafruuxun bi qudumihi lañ wax mafruuxun bëgg nañ bi qudumihi foo nga indi jaar ak majruur يوم الجمعة مسير فيه ويلن دخ تم أن نظر أو المصدر ولم عندك مصدر مصدر آه، بوخمي مختص لدفع جاكو آه، آه، كم نانا جلسة جلوس حسن توق نان كم توقك حسن وخو جلسة رك توق نان كم توقك حسن دينا دينا كده فين غدف حسن المكان مجلوس فيه جلوسا حسن بربي توغ نجيكم توغ حسن دو تبرك دف مجلوس الفوم عندك لين لين غيس ني مفروح واي به لين بك سي موم دو با دا فاي جار واي من نجار يب مجلوس المكان مجلوس فيه بتاي جلوس حسن كم تقول حسن واليوم جمعة الدنيا من دخلة فيه جموم ما نعم مبني للمجهول الفوم أم الفوم أم لم عندك سوفك سيفهم لازم لنكوي لنكوي لنكوي جري ظرف ولا جار مجهول ولا مصدر كنت سويد آه، قسني دف ne ismu maf'ul bi nangam rek dafa fekk fi'lu muta'addi la bu dul fi'lu muta'addi rek dangay gis mu ànd ak jaar ak majruur wala leneen lu ko dëgëral as sifatul mushabbah bi ñu faal moom la war a jàng yaakaar naa ne nañ ko bàyyi ba beneen daf yaakaar naa dafay jàngoon nañ ci gannaaw <clears throat> masdar yi waxoon ñaata euh, xeetu masdar moo am sulaasi yi yu dul sulaasi yi mm-hmm. ak bu nekk la ci xiyaas ak la ci dul xiyaas yam nangoog yam nanguwut mm-hmm. jàngoon nañ foofu eh, yaa a mm-hmm. eh, kenn du wax lu muy mu yaa mën a tan mm-hmm. dégg nga yaasara mu yaasara tan dégg nga eh, ñu yombal na wala boog dox na ci ku ndey joro waaji wala yi demee noonu jàngoon nañ it masdar as-sinaa masdar sinaa yi nag moom qiyaas yi qiyaas yi la li tax ñu tuddee ko sinaa parce que arab yi ñoom ñoo ko tëggaat gannaaw nga defar ko bu njëkk arab yi njëkk yi daawuñ ko jëfandikoo lu bari ñu mujj ñi ñoom ñoo ñëw di ko def da ngay jël baat rek baat bi mën naa nekk mustaq buñ xottee si dara wala jaamit baat rek ngay jël nga yokk si yaaguñ sadd def ci taa boobaa li muy mooy melo yi nga xam ni mbir mi làmboo na ko insaan doomu aadama rek la mais boo ne insaaniya mooy firi koo xam ne dajale na mboolem melo doomu aadama mm-hmm. ku nite lewet na baax na mm-hmm. am na xel am na nangam mbaamiwu dafa nangam insaaniya xorr mooy firi gor mm-hmm. kii gor la rek bépp tëg xorriya kooku dafa yore mboolem maanaam liberté kuñ ko ci benn benn côté tey ab réew si misaal mën naa nekk xur mais amul xorriya lu tax amul parce que ñeneen ko ilif ñeneen ci réew moom muy dox su ko defee nag ku am koo xam ne tëkkuñ ko ci dara doomu aadama mën naa gor soo amul xurriya xurriya mooy ismu masdar sinaayi bi mooy masdar bi ñu doomu aadama mën naa nekk gor fekk bakkanam moo ko tënk kooku jaamu lan la jaamu bakkan bi koy seytaane moo ko tënk jaamu lan la kon gor la parce que du jaamu nit mais amul liberté totale parce que jaamu seytaan la wala bakkan la amul xorriya hmm. su defee kon euh, masdar sinaa yi loolu moo tax ñu koy tëgg dañ koy tëgg pour melo euh, ismu boobu lépp daje ci moom in uridu l islam astatuma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib